Sokh daan na ko jël bu rëy jël bu leer jël ko bu benn wérante Sokh daan na numéro 2 Sokh numéro 2 daan na ko Sokh numéro 2 mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu Sokh numéro 2 daan na dalis daan na séeréer daan na séeréer. wéy. ci loo nekk. sant yàlla rek. maa yaayam jàmm. maa ngi sant bay. mais da ngaa bàyyi bër. astafurlah teel na. mbay ah, mbër moom bu bëreewul la bàyyi na ko. dañuy sant yàlla rek julli ci yonent bi sant suñu wajur di sant suñu sëñ sëñ sëriñ Cheikh Modou Gueye bàyyi gu ma bëre awaguma ci dara dama war a teral ñu bëri dama bàyyi mbër yay ruux rek. yan mbër. nañ. kenn daw la yow man daal mbëri li ma jaaxal mooy ko ci laaj mu ne ñu may daw wala léegi kenn lañ dawul xanaa man la ñuy daw. dinaa de dix-huit komba di daw mbër wala di wax leneen man su ma suba ma tag sama ngeen ñu ma bëre fii fajal waa géej waa seen mer. Ah. loolu laa bëgg. ban catégorie nga bokk. catégorie ñoom Moussa Ndoye. Moussa Ndoye du sa morom Moussa Ndoye moo daan ay victoire nga kontel samay victoire kontel mbër yu mag amul ku ma ci ëpp victoire du ci mbapat du ci arène mënoo duy lu ma duyul barke sëñ Touba dañu war a ñu giita ngaas balaa koor gi di ñëw waaw. armée du neex. Ah? jege na ma mais dama koy dama koy lekk daanu. bu ñëwee ma daan ko fii na ñëw Dakar ma daan ko. waaw na ñëw ma daan ko. ah yi fekk ko Thiès yow. barke Seydina Mohamed. waat naa ko ci sama sëriñ seex moo Gueye. ah bu buntu këram. yàgg naa bu ko moom tournant musul. village borom Thiès. Thiès laa ko fekk ci tournant. maa koy jël ci kanamam ni mu koy gis. muy bëre may bëre ma. ooy ma da ngeen dese xam nag. mu jël avance bi. du reer. xam na Mbaye ku ma yeb rek danga maa jékku boo boo ma jékkul doo ma doo ma yeb ak sëñ Tuba. waaw ñu ngi ñaanal guy gi nag yàlla ko yàlla teggil tolof tolof yi barke Serigne Touba combat bi da ko doon bañ a rek daa blessé. la saltel. waaw daa blessé. surtout da ngeen di ñaanal nag ki ko daan yàlla ko victoire bi jëkk. surtout da ngeen di saltel. barke Seydina Mohamed non man dama saltel man. dama xool ko tey est-ce que nekkul hôpital. tànk bi ni lay toll. war na yàlla. nii nan la toll. <laughs> bu baax. ko ñaanal yàlla defal ko tan yàlla ko jàmm. e njaga doole kaay. yaar la mu jëbëreel daan ko. moom njaga doole. Eumeu Sène Junior a ngi loolu Eumeu Eumeu lamb ji fan yi neexul ci yéen de lamb ji neexul ci yéen waan ndamañ gi nga léegi am dama ko moo daan léegi combat bu rëy bi ngeen bi ngeen perte dimanche waaw mais loolu lamb la lamb moo demee noonu rek mais day xam nga di félicité rek rek wax guy gi projet ko moom yàlla ko yàlla may noonu la mënoon demee blessé na bëre mais. waaye loolu blessé na man blessé na laay a dégg. daanoon du wax blessé na. ray ma fa tax na koy wax. dafa tax na koy wax sama combat ak ak ak Bour Sine dama blessé ñëw bëre daan wax ko. barki ay tey bool dama la ñëw na nga am pour doog 15 jours. barki maam Seydou ma ñëw bëre. ñu la teerum may fen. gars rek indi damaa blessé. zone nu articulation am ku ne mbëri sax seen articulation man moom lenn laay gëm. nit li nga ma wax loolu laay gëm ba keroog may gis leneen. nee na dafa blessé loolu laay jàpp ba keroog may gis leneen. looy def leneen. doo gëm lii bu ma waxee doo a su ma demee waaye waratuñu émission nga ñëw ne ma benn caméra bi daa paan lu ma wax du ma gëm lu nga wax. waaw mais loolu àdduna tamit. waaw mais loolu àdduna. war nañu war a def saal man ak yow. ma daf damaa yónni. waaw waaw voilà loolu ngay jàpp. di ko ñaanal prochain combat yàlla may ko ndam bu baax a baax a a baax mon frère ñu ngi lay ziar bu baax a baax loo nga dalal jàmm yéene wuñ la ko buñ ndam lu rëy ci barke maam Serap Fall mais suñu ba waa tey guy gi moom fi ak Faram Junior bébé guy gi daan na Faram Junior moo des yàlla ko yàlla may ndam incha allah ah. non guy gi Junior du ak Faram Junior waaw. Ah. Eh. Faram Junior na ngeen ko pare. mais Moussa Ndoye lu muy xaar lu ñu lu muy amul combat amul combat lu muy xaar. Moussa Ndoye lan lay ragal. xëy na ko. ah gannaaw nga mën a kaay ñu bëre wala da koy ñaan revanche. Moussa Ndoye moo daan sax ah, booy jën xeer bi ñëw rek. da koy ñaan revanche. dama koy ñaan revanche. jaadu na moo ñu bëre. lamb lamb lamb du la. maa ngi daan. lan la c'est quoi le problème. kaw ñu bëre nekk. loolu dara nekk si maa ngi yow nag may daana ma daan la rek lamb la lamb continué wéy. dañ bëre itam yaay toog ba mu barki seera fa lamb la. lamb ji wér la. ndax jiili. ci Abdou Khadre Jilaani. doole jëli si daan loolu yaa. waxal waa yaa kenn gënul. bàyyi sant bu wér. waaw yaa ma gën a xam. kuy liggéey du xalaat kuy liggéey du xalaat kuy liggéey du xalaat. te doo dangay liggéey doo xalaat. voilà kuy liggéey du xalaat. actuellement nii foo jëm. actuellement fu ma jëm fu mu toll nii samay morom na ñëw ñu bëri Serigne Ndiaye doon na ñëw ñu neexal ko. bu mu xalaat bu mu xalaat. Kër Yaas. na ñëw ñu neexal ko. lamb amul loolu ak ay morom lañ moom mi daan barki démb. on est des daan ma daan. yow neexal ko bul xalaat. mu ñëw lamb yëfu góor la na ñëw. bul xalaat ku la joxoon avance Serigne Ndiaye. léegi yéen a ngi yàlla léegi ma yóbbaale ko bu doon xalaat. ñëwal ñu bëre. maa ngi lamb ñu neex la li ma gën si yow mooy da ngay dëggal sa bopp. maa ngi bu ñu dajee yar ndëm la. xam naa ne maa ngi bu ñu dajee moom. amateur yeeg ñëpp ku ñëw du mer. sama combat yow fu ñu ca publicité la ñu xam ne bu neex la laajuma la nag mais dañoo war a bëri quoi la ñëwoon ñu bëre. ñeme oo Père Tafa donc ah, boobu léegi Père Tafa yor lépp. Père Tafa lu ma ma. Père Tafa Gueye ñemewu ma. Père muslu. bu dee bu dee Père Tafa moom xam naa duñ bëre. <laughs> barki yonent xam naa ma jël kon bu dee bu dee man xam naa ni Père du ma jël ndax Père Tafa ñemewu ma man damay daw yaramam. billahi wallahi wa taala mais Serigne Ndiaye de dëgg la sa nga ñëw bëre. ay xale ngeen de. ah xale bëre bu xalaat bu dee Tafa Gueye Tapha Gueye du ma jël wax naa leen leer bu demee kanam. ñoom ñaari xale yi ñu door na ko daanu waa. waa. waa. lii la waa lii. non almaami lu ko dal looy loo zéro arrière arrière zéro arrière arrière door mu ne këpp waa lii lan la waa lan lay wax waa koñ ba hee ay waay zéro arrière xamul sax lu ko daan Adama zéro arrière xamul sax lu ko daan ndeysaan oh almaami da koo door mu daanu ndeysaan Allemand da koo dóor mu daanu ay waay zéro arrière waay zéro arrière arrière na Adama arrière na e Allemand gars yi ne leen dóor bi dalul dama ko jokkaas ah? dama ko jokkaas dóoruma ko de dalul dal na mais jokkaas la cokkaas la bàyyi jili cokkaas la ah non non cokkaas xam naa dafa man cokkaas laa jàpp ne dama doon cokkaas noonu bilaay wallaay dóor ma maa bëggoon ñu bëri yaat bilaay wallaay kii kii aw ma fayam yàlla na ko taxaw booy bi am na mag ñi am na xale yoo xamante ni am na mag yoo xamante ni doon nañ xale ba maa gëpp booy bi xam na lu ñu xamut te ku am kóllëre la yàlla na ko yàlla defal jàmm. maanaam ma semence maanaam moom du ay wax. lii mooy sa ñaari combats six combats. ñaari victoire ma victoire deux défaites quatre victoire dama premier combat laa daanu ak sama deuxième combat ma déglu laa daanu ma déglu ne. ma déglu ne mais ma gëm sama bopp liggéey. damaa bokk si lamb. Saalum Saalum la te waa Kër Mbaye dafa bëri ay champion ay champion ñoo fa ne man maa fa gën a doon man maa nekk cuune Kër Mbaye Fall man ñëpp may jàngal bëree ñoom Ibo ñëpp dañ may jàngal bëree. ñoom la biri si man dañ may jàngal bëre billahi wallahi kenn may faal Koulibaly de laa soxla men billahi li muy cëmbar Koulibaly li muy cëmbar cëmbar man moo neexu dama ko soxla billahi kii Koulibaly de dama koy xool arrêté ah, ah. ko rek mu toog eh, alma xarit bu bees alma la tudd dafa leer barki yonent bi dama nag ñëw maa iba suñ benn benn koñ la rek ñëwal kër Mbaye Fall nga seet si ma. laa ndoye yam aja waaw waaw. arbitre nga waaj a sifflé dox ci diggante Amza ak Sokocim ndeysaan Sokocim numéro moom ngeen jàkkaarloo moo ngeen moo lu weex li Amza moo la tent tent bopp lu weex am lu ñuul. Ndeysaan Amza écurie Boy say la nekk Soko Sim Daaru Gëm sa bopp la nekk <laughs> Ndeysaan ñoom ñaari xale yaa ngi noonu Ndeysaan ñoom ñaari xale yaa ngi noonu Soko Sim numéro 2 ak Amza Hamza Hamza Hamza Sokosim Sokosim Sokosim <laughs> waaye xale yéen wax door na cokkaas na e ni mu ñëwee baaxul ma ngay door Sokosim ma ngay door Hamza ni nga ñëwee baaxul jàppante nañ combat bi dina gaaw Sokosim Hamza ma ngay fayu ci suuf lu nar a xew Sokosim Amza Sococim loxo càmmoñ bi jàpp na Amza loxo ndijoor bi jàpp na Sococim a ngi dóor ci suuf Sococim a ngi dóor ci biir bi Sococim dóoraat na dóoraat na Sococim dóoraat na Sococim a ngi dóor ci biir bi mu ngi dóor loolu lañ tuddee pompe pompe pompe pompe ma ngay pompe moom Sococim Sococim Amza Sococim Amza soko sim Amza soko sim Amza soko sim ma ngay door dugal bopp bi Amza soko sim Amza zongale na ko mu bañ Amza soko sim Amza soko sim mercredi 23 wala arène nationale Ama Events Sococim Amza combat spécial baa ngi noonu Sococim Amza ñoom ñaar a ngi noonu ndeysaan Sococim Amza <laughs> ndeysaan xale yaa ngi noonu Sococim Amza lamb jaa ngi noonu ndeysaan Sococim Amza Sococim Amza lu mu nar public bi yuxu na action bi Sococim bañ ndaysaan ñaari poids lourd lañ combat bi munul gaaw du yomb moytul dem na sànni na ko Sococim Amza Sococim Amza Amza Soko Sim jëli na daan na ko daan na ko e bul dóor waa mbër yi leen dal ku dóor sa ñam waa mbër yi lan la ah Amza daan na Soko Sim de waaye ñam na ko de ah bàyyi leen lii waay lii rafetul waay lii rafetul waay ah Amza daan na ko waay daan na ko ndeysaan Amza daan na Soko Sim waaw waaw arbitre baa ngi noonu di siffler grand combat bi dox ci diggante Petit ak Fadam Junior écurie Mor Fadam Petit Kona kaay baax la nekk Fadam Junior moo woon ginnaaw Petit Kona moom ngeen jàkkaar lool waa Ama Events ay ca mbokk yi mercredi 23 février 2022 arène nationale Ama Events Petit Kona Fadam Junior Fadam Junior moo woon ginnaaw ngembo ngemb lu weex li Petit Kona moom nga ñaari xale yaa ngi lewaatoo ñaari xale yaa ngi lewaatoo am ci làmb ji te tey laa koy gis ñaari mbëri di bëre ñuy teg riita suuf ana cosaanu mbay ana cosaanu làmb cokkaas na cokkaas na ah, lii lan dinañ xeex Petit Kada Petit Fadam ak Kona ndeysaan Petit Kona Petit Kona cokkaasanga Fadam mbaa duñ la door nga daanu mbaa duñ la door daa bëggoon jàppante jàppante na Fadam jàppante na ma ngi door Petit Kona a ngi door ci suuf Fadam mbaa njëtt bi nga njëtt dina la arrangé may tull ndeysaan Kona dooral fi nga doon door baax na bul songale ah waay kana waaw del dóor Petit Fadam dugalal sa bopp ndeysaan ko ba pare jéem a xool noo defee kele kana yow del dóor rek bul bàyyi del dóor kana del dóor ñu ngi dóor kana mu ngi dóor Petit Fadam ndeysaan ardo wala déet ah gis naa fi ku génn ñoom xonq de kàlla wala arbi mi gisagu ko arbitre yi daal maa leen gën a baaxi bët arbitre yi maa leen gën a baaxi am na mbër mu toj te arbitre bi gisu ko tey lii ma ngay fayu Petit Kana ak Fadam arbitre bi daal bët yi baaxul lu la wax arbitre bi daa am lu yëpp ba may gis muy naaj ci arbitre bi gisu ko mbokk Basirou Diouf la <laughs> arbitre bi ak Bas ñoo bokk benn non arbitre bi du dara <laughs> ndeysaan sama xarit la ak ñoo baax ndeysaan arbitre yi ndeysaan mbër ba dem na ardo Fadam dem na ardo ndeysaan Fadam dem na ardo Fadam dem na ardo ñëwaat arbitre bi la waat na Fadam Petit Kona Petit Kona Fadam Petit Kona mu ngi dox ci koom lan la ñuy defaat Poulicounda daa bëgg a cokkaas cokkaas ànd na jàpp na dóor Fadam téye na Fadam Poulicounda jàppante nañ lu nar a xew ndeysaan Poulicounda ngi dóor ci Fadam takk na ko takk na ko Fadam daan na Poulicounda Fadam daan waay Fadam daan na waay waay Fadam daan na waay daan na ko Fadam daan na Petit Gana waay xoolal supporter Fadam yi waay ndeysaan waay jëwal ama ser jëwal waay kirba dangay fecc dana ko rey ndeysaan lamb ja jeex na waay Fadam daan na waay grand combat bi Fadam daan na ay waay Fadam senior daan na ay waay Fadam daan wax rek du da ngeen waxoon dañuy dem faar waaw waaw am na ñu ko wax de ci waaw ñu ne da ngay faar xanaa xamuñu xamuñu ma de moom mii ma sax xamuma heure bi waru ma woon a bëre ñii billaay wala lam moo tërëdi rek ak gëj a bëre doon def ay trois ans mënoo bëree xam nga da ngay perdre repère sax looloo tax looloo tax ma bëree li ma bëree ni da ngaa perdre repère nii li ma bëree nii kontaanu ma si. lu tax coup bi ma jël waruma koo jël. lan moo tax nga jël coup bi. mais fallait que nga jël coup bi pour mën koo jàpp. waaw pour ma mën koo jàpp man xam naa moom ma ko jàppee mu jeex moom. waaw sa ñaata combat. bii mooy sama neuvième combat. nga jëm fan. ma jëm ci kaw rek. ci ñan ñuy tax rajo rek. ñoom Tapha Mbeur. Tapha Mbeur ay Ada Fass waaw ñooñu man ñooñu laa ay Tapha instant dimanche. Ada Fass Jokal ku daan foofu soxla naa la. ku daan ak ku daan. ak waaw bëgg naa waaw ku daan ku daanu. mais surtout Tapha Mbeur. Tapha Mbeur mi tax rajo yi mu bëree sox na ñëw bëree man moo gën. gën moo fa dem ñu fiy génn dañoo am defet mais bii yoon ñëw nga indi fa ndam sa moroomu nawle bëriwaat moom it am ndam. daa mel ni mu ngi waaj a neexaat ci neexaat parce que gars dañuy liggéey te caaxaanuñu tey ñoom yooyu mbër faram tey ñoom ñoom mbëri seen mbër mu doon bëre tey muy faram si ñëw. waaw gisoo boo gisee ñoom ñëpp ñëw nañ ñëpp ñëw parce que seen mbër laa man waaw. lan moo la def loolu lan moo tax nga nekk seen mbër. ah loo leen ji loo leen wax. <laughs> xanaa yéen a ñoom ñëpp ku ci am bis ma son si yow. loolu waaw wax dëgg fa yàlla wax dëgg fa yàlla.